ay Aïcha mi ngi noonu euh, Modou Diouf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, kon nag euh, Sanjogu ak rubrique am bi nga xamante ne ni moo di pajum cosaan mu ci daan ànd ak Cheikh Bara comme ni ñu koy waxee rek ñu ñaanalaat ko bu baax baax yàlla suñu borom taxaw ko alaaji kàddu gaa ngi noonu. jërëjëf ma jigéen Diop ñu ngi am mbégte ak kontaante di ñëw ak yéen ci rubrique bu mag bii nga xamante ni moom la ñuy wax pajum cosaan di ci ànd ak. àcc ma sàmba mu Seex Baara Njaay borom def gis eh, mi nga xamante ni bi moom lañu àndal ci rubrique bi di ko wax ne ko sëñ bàcc ñoo ngi lay nuyu waaleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu tubu ilallaahi waxtadu mulaa tafatan tans xulubukum wa xawmi mukaasafatan fa kulluna falyatub irjoma saadafatan astaghfirullahi adaafan mudaafatan mimma sakartu min ajinaasi wal xisami alhamdulillahi lamma xalqa daawatari min baxdi ma kuntu saa faqarin wa saa dararin xamdan yukaafi masjidan min fi usri suma salaatu xalal muxtaari min mudari xayril bariyati min baakin wa mutasimi allahuma maxfiratuka awsaxa min sunubi wa rahmatuka arjaindi min amali waaleykum salaam wa rahmatullah saa njóogu maa ngi lay fay nuyoo bu baax a baax di nuyu sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des mourides di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ko wér ak mbooleem kilifa diine yi nga xam ne ñoo ŋànk diine lislaam yëpp ñoo ngi leen di ñaanal sama borom defal leen gudd fan ak tawfeex amiin di nuyu mbokk yi ma dajal ci plateau bi yëpp di ziare sama xarit Baye Sène Mesere di ko ziar bu baax di ko jaajëfal itam ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moo ngi koy liggéey itam waaye itam di jaajëfal baax a baax maa jigéen ci fu Matin ak solution fépp rek ñoo ngi leen ci jivor di leen siyaare di leen ñaanal jàmm saa njógu yooyu itam naka mm. noonu waaye itam Seydina Omar Gueye bun Xattaab sunu xarit ñoom itam ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar bu baax a baax di ziare mboolem auditeurs yi nga xamee ne ñoo ngi bàyyi xel wal fajari di ko seetaan ci biir réew mi ak biti réew. jërëjëf Bàcc ma Samba mu Cheikh Bara njaay borom def gis sëñ Bàcc euh, tey euh, dama bëgg ñu démarrer ci li nga xamante ni kii moom la ñuy wax Cheikh Bara Ndiaye boroom def gis. bu ko defee loolu sax dañ ko war a téye tuuti. Hmm. pour nit ñi xaar fi nga xam ni fa lañ jëm wala ñu démarré ko rek ça dépend ci noo ko bëggee. waaw yow <laughs> kon léegi euh, nañu démarré ci paj bi bu ko defee nit ñi xaar. Hmm. li nga xamante ni bii tey moom nga war a indi parce que. dafa am yu am solo yoo xamante ni bii tey. Hmm. bàcc mi war na ko indi tey. mu nekk ay information yu am solo parce que fan yëpp dégg ngeen. ci mbirum grève de fin boobu nga xam ne Cheikh Bara Ndiaye borom def gis def na ko ak la nga xam ne fa la situation bi toll yooyu yëpp incha allah dana ci ñëw ak tamit kilifa yi nga xamante ni bii ñi ngi ciy wax ak ñi nga xamante ne bii ñi ngi ci mais baaj dama bëgg ñu ñëw ci liggéey bi nga xamante ni boobu ba na rabbi alhamdulilahi rabbil alamina moo tax boo yoree xam-xam dee ko jàngal say jege ñaale parce que lii yëpp dafa mel ni Cheikh Bara sóoraale woon na ko boobu ba nëga ni wax dëgg fa yàlla nit ñaa ngi woote. Hmm. di rafetlu di wane ni kat ah am nañ mbégte bu baax a baax liggéey ba moom dara sooxewu ci waaye nag am na ay saay-saay yoo xamante ni bii ña nga ca biir di escroquer. Hmm. di jéem a fexe ngir di arnaquer bu mel ni am na loo xamante ni bii tamit tàmbali naa feeñ. Hmm. waaw léegi dama bëgg nga ñëwal ma ci loolu balaa ñuy dugg ci paj mi. fi mu toll nii. jërëjëf Sanjoogu mm-hmm. euh, maa ngi sant nag bu baax a baax euh, sëñ aadama Ndiaye. Mm-hmm. Euh, mi ñu fi wuutu woon ci ah. alxamis yi weesu. ah Adama mi ngi maa ngi koy nuyu bu baax waaw liggéeyam rafet na macha allah. Mm-hmm. te it communication bi jàll na bu baax a baax a baax. loolu lépp li ñu si jublu rek mooy wane ne. ñi ne ci Cheikh Bara du kenn du ñaar. waaw ñiy feeñ. ñi feeñut moo leen gën a bari. mi ngi mel ni rek maanaam après. Mm. ñi ciy toog di wax. Mm. techniciens yi yore caméra ba ak ñi ci régie ba. waaw waaw mbooloo lañ. dëgg la euh, kër sëñ baar noonu rek la demee. Mm-hmm. kenn ku ci nekk rek boo ko tegee rek moom mat sëkk place kon ñu ngi koy sant bu baax a baax ci liggéey bu rafet bi nga na ko. Euh, ah, euh, bu fekkee li nga ma laaj nag. ci wàllu ñi nga xam ne dañu ubbi seen i compte TikTok. Mm-hmm. naam bi fi sëñ Baara nekkit ñi ngi ko doon def. Mm-hmm. waaye sëñ Baara day faral di wax boo ko masaana wax di ko kalaame danaan mhm. euh, bu bu la dee def lu génn nga weddi mhm. euh, bis jot weddeetoo bu dañ dañ dañ naan kon léegi que lii kon maanaam euh, jërutu boole moo ko def mhm. waaye yàgg nañ di signaler Cheikh Baara ñenn ñi nga xam ne ay arnaqueur la di jaar ci TikTok bi di joxe numéro yoo xamante dañuy mbubboo seex Bara mm. loolu lu baree baree bari la waaye dafa mel ni nag dañoo dem ba ci biir ñu xam ne waaw mbir yi nag warutuñu rek ne lu jot ñañ kalaami Cheikh Bara mm-hmm. ndax bu fekkee ne ñu dañoo nekk di liggéey ak moom waaw faaw ñu am lu ñu ko jariñ dëgg la li ñu koy jariñ nag mooy yi nga xam ne ay yàqu-yàqu la mm-hmm. ñu fexe ba dindil ko suñu bopp paa ñuy jaar ci Cheikh Bara dëgg la loolu moo waraloon maanaam loolu ñu ñu ñu taxawoon ci ba defoo ci waxtaan mm-hmm. fas yéene loolu ñu leeral ko bu baax a baax ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax yow itam sa jógu ndax euh, ni nga ubbee émission bi mm-hmm. daanaka jëruñu ci tegaat dara ndax li ñu ci war a wax lépp wax nga ko loolu lu ah, war la te dinañ koy def di ko fàttali parce que caay-caay il faut ma éliminer leen waaw am na it ñoo xam ne am na ñoo xam ne dañ doon liggéey ak ñun c'est nga xam ne ci suñ cabinet la nekkoon mhm. di liggéey ak ñun waaw waaye yàlla dafa dogal ñooñee nag maanaam li nekkatuñu ci cabinet Cheikh Bara mhm. waaw te it ñun it dañuy jot ay ñoo xamante nii mhm. ay client lañ yoo xam ne xamoon nañ ñooñu ci cabinet Cheikh baara waaw ba am ñu ñuy jëflante ak moom soit ñooñu dañuy jotaat am ñu jëflante ak ñooñu te jógee nañ fi waaw boo ko defee ñu leeral leen ne leen maanaam cabinet euh, sëñ Baara moom benn numéro rek la. Hmm. moo xamante mooy numéro principal sëñ Baara mooy 610 bi ngay joxe. 610 81 81. mu ngoog waaw 77. mu ngoog ok léegi nag numéro boobu. Hmm. ku ci jaar. nga xam ne yow yaa woote ci numéro boobu. Hmm. beneen numéro bu ñu la joxaat na nga woote ca. waaw su boobaa responsabilité bi moom ci cabinet Cheikh Bara la. waaw ndax da nga da nga ne da ngaa woote ci 610 bi. Mm-hmm. ñu jox la beneen numéro. waaye nag bu ne da jaar ci beneen numéro. waaw te jaaroo ci bi. Mm-hmm. yu dul numéro yi nga xam ne ñooy affiché ci ban écran yi ndax nag. waa waaw am nañu yeneen numéro yoo xam ne moom. Mm-hmm. bu dul 610 bi it. moo ngi ci suufu écran bi di daw ci émission bi ñu ngi koy seetlu xam nañ ko baax a baax. te numéro yooyu itam def ngeen ci numéro bu nekk ak fa mu nekk muy Mbour muy Thiès muy Touba. Mhm. numéro bu nekk am na fu mu nekk. Mhm. kon numéro yooyu nga xam ne yéen ko affiché ci bande écran bi nga mhm. xamante ni bii Mbour lay waxal bii Thiès lay waxal bii Touba lay waxal. bii Ziguinchor lay waxal. ba tey numéro yooyu numéro yi sa cabinet Sëñ Bara Ndiaye la. voilà yenn numéro daal la ñuy joxe. muy numéro boo xamante ni rab moo ko tax a jug. kooku moom amul ci bande écran bi waaye boo wootee ci 610 bi. moom moo la koy jox wala nga woote ci numéro yi nekk ci région yi. waaye lu dul loolu moom ñu nekk ci TikTok yi moom numéro TikTok bu ngeen seenu ñu ne la cabinet Sëñ Bara la Instagram wala fu mu mën a doon ci ci sport yooyu ñu tudd moom. Hmm. benn bu ci numéro Cheikh Bara amu ci. voilà ba bàcc li nga def noonu lu am solo la mais xam nga Assane parensaay day wax ne yàq ojo ne buy def ojo audio parensaay da koy yàq pour bu ko defee même buy wax ak keneen boo ko partagé kooku du ko mën a jariñoo. Hmm. maanaam euh, li nga sécuriser mbir mi daal di wax ñi nga xam ne ñi ngi ci bitim réew ak ñi nekk ci biir réew mi. képp koo xam ni bëgg ngaa jokkoo cabinet Cheikh Bara Ndiaye. Hmm. bii numéro la. muy 77. 610 81 81 beneen numéro boo jaar tàkk nga sa xaalis ji naaw na. dëgg la waaw lu la ca dal yaa ko teg sa bopp. 610 81 81 di 77. loolu mooy numéro bi. kon arnaqueur yi bu yow ngeen xam ne yàqu ngeen. tey man ak yéen danaa leen rajaxe voilà bàcc ma Samba mu seex Bara Ndiaye boroom def gis euh, loolu am na solo mais tey dama bëgg aussi tamit ñu ñëw ci li nga xamante ni bii mooy garab yi. Hmm. garab yi nga xamante ne bi yéen moom defar ngeen ko ba pare muy lu jëm ci wàllu ay hémorroïdes ndoxum siti néew kàttan ak et cetera yooyu nga xam ni moom ngeen di def ci boutique yi yooyu moom yu ñuy ñëw rek jaay la mhm, mhm. yooyu defar ngeen ko ba pare waaw yooyu moom yu ñuy yoo xam ne yu ñuy defar la ba noppi waaw muy hémorroïde mhm. ndoxum siti ak néew kàttan ci wàllu ngóora loolu lu ñu liggéey la ba noppi saa yooyu ñëwee rek dañ la koy jox muy fii ci Ndakaaru wala muy ci yi waaye damay faral di wax ne euh, saa su nekk dañuy def consultation. Hmm, consultation nit da lay naan la tege consultation bi ñaata la. waaw waaye fekk na consultation bi mooy ni ñu koy détecté. ne bu la hémorroïde dalee nii lay dal. nii la lay def xam nga keroog rek maa ngi lay seetaan di ree hmm. nga ne bari na ñoo xamante ni dañuy tiitaroo. naan dañuy toog ñetti fan. dañuy dem toilette. waaw waaw te loolu musiba naaru laay la. Hmm, nit mënoo lekk vingt quatre heures. mu toog soixante huit heures te demoo toilette. loolu mi ngi def ay jàngoro ju bon ci sa yaram. Mhm, te boo toogee léeg-léeg nit daane la man day dagg mburu mënuma koo jeexal. waaw wala maanaam man bu ma tiwmee ceeb rek bu ma tibbee. Mhm. ñaari ko du suur. Mhm. loolu ñaareel ku mu dal rek. waaw xoolal sa bopp te xam ne émori internet mi ngi lay sonal ndax nit moom mhm. énergie bi muy dégager daf ko war di amaat mhm. dafa war di lekk saa su nekk waaw bu war war war di bu fekkee ne dafa war a añ mu war a añ bu war a reer dafa mhm. loo xam ne da nga koo tàmmal sa bakkan nga not sa bopp ci yow da ngaa not sa bopp kat ci ak lekk ne mën waxtu wii laay lekk nga ne yow yaa ci tàggat sa sa sa sa bakkan euh, bu dul loolu rek saa yoo demee ne yow da nga daan xëy di ndékk normal di añ normal di reer normal nga dem ba centriroo ko defatoo ko rek xoolal bu baax a baax ne amee nga jàngoro hémorroïde jàngoro hémorroïde nag maanaam dafa yaatu jàngoro mm. hémorroïde moom niñ koy faral di waxee saa su nekk ginnaaw julli gu nekk faaw nga tere ci faatiya mm-hmm. kon dafay jaadu saa su nekk da ngay leeral li muy def doomi aadama amee boo ko xamee boo ko yëgul hémorroïde nga amee di di xëy di lekk normal nga dem ba mu yàgg sentiroo ne mënatoo lekk ci dara mm-hmm. boo ko xamee boo ko xamul da ngaa amee hémorroïde jàngoro moom bu nekk ci yaram rek mm-hmm. day commencé def ñàkk jàmm ci sa wér di yaram ñàkk jàmm day ñaar jàmm ci wér gi yaram mhm. maanaam ci gis nga mën a dox say soxla mhm. am sa liberté mhm. waaye jàmm it ci maanaam euh, feebar feebar waaw bu fekkee ne da ngaa ne lëkkatoo normal wala naanatoo normal rek waaw su boobaa loolu feebar daf lay dal di dugg bu nekkee prostate it prostate euh, sëñ Adama waxoon na ci lu am solo waaw euh, prostate moom ñi li koy def mooy ñu war a dem tuur ndox di ko naj naj man xaaral ma xaaral ba ma génn kii jàng yi wala xaaral ba ma génn fi mbooloo bi ma nekk naj gi nga koy naj waaw mooy dem ba indi la prostate. Mm-hmm. ndax ba jamono bi nga koy mën a téye. waaw booba da nga am force. da nga am force mën ko téye. waaw waaye boo laqee quarante ans. Ah. force boobu day wàññeeku. doole jëkkatu waaw ay day ñëw rek dem. ngay dégg Fatou Gueye da way naan doole yàlla doole jële yàlla joxoon. waaw waaw jëlaat na ko. dénkaane la dénkaane ko maanaam ndaw. Mm-hmm. dafay am kattan. waaw waaye lu mu gën di màgg rek di yokk rek. Mm-hmm. doole mi nga wàññeeku. léegi nag énergie bi ngay am. da koy réserver. ci booy nekk mag. waaw ah da ngay réserver. waaw maanaam boo sawee saw yi jógal saw yi. waaw ndax yaa ngi réserver. pour ëllëg si biir boo demee ba kii nga mën koo téye. gis nga sax sañ juba mu ñu koy wax ci tasawuri saxaar. waaw fakk lu man képp koo xam ne baa dara gaawe na waxtal si xaari waxtu ndawam. waaw ilal daa jëm ci ak jub. Mm-hmm. istiraaxa noppalu na waxtal kibaar bu demee ba nekk mag. Ah. maanaam sa waxtu ndaw boo ci gaawee jaamu yàlla. waaw dinañ la réserver ci sa ndaw googu boo nee ba nekk mag yàlla mm. dana la noppal ci lépp. dëgg la loolu itam nit ki da koy xam. ci dundinam. ci mm. kattanam bi mu amee ndaw. dëgg la gis nga feebar yi nga xamante ni da nga koy denc ci sa yaram. waaw léeg-léeg nga toog sa bopp di metti nga sàggane ko. waaw xooloo ba xam li la li la dal lan la. Mm-hmm. loolu lépp ay jeexatal lay doon. ci boo nee ba nekk mag. Mm-hmm. bu ko defee nag prostate noonu lay def ci nit. waaw waaw boobu ngay najj day dem ba jural la infection. Eh, eh. infection waaw maanaam naq mi nag léegi day metti waaw saw saw yàlla waaw waaw moom mooy dagg mooy mooy prostate mooy saw mu tuur ndox mu bëree bëree bëri boo toogee cinq dem tuur ndox boo toogee cinq oh, ah. bi nag mooy mu mu ngay ngay tuur ndox waaw boo demee xam ne yow da ngaa safa saw lool mais boo demee tuutay génn ah, saw tuuti waaw waaw mais kuy xërërëri xërërëri saw kooku est-ce que prostate la non non xam nga xam nga xam nga prostate waaw tour ndox mu bari la lay def. maanaam ah, toog 5 minutes dem toog. Ah, toog 3 minutes dem toog 3 hmm. minutes dem loolu mooy problème waaye léeg-léeg nga toog mën a pendant di kii toog man lu mat une heure de temps dem tour ndox tour ndox mu bari. da nga naan ndox mu bari rek. Ah. loolu moom amul waaw amul ji amul jeexatal voilà léegi nag bu nekkee ci wàllu site yi. site jamono ji ñu nekk site sonal na nit ñi site. waaw kay hmm, hmm. jamono ji ñu nekk waaw jamono tàngoor lañ nekk. tàngoor moo tax cité day feeñ ci nit ñi ñu baree baree bare. voilà bu tàngee rek. climat bi bu sensé. waaw bari na ci doomi aadama yoo xamante bu dee quatre vingt dix pour cent lañ quatre vingt dix seen cité day jóg. day yéeg waaw dafay yéeg. lu koy yëkkati énergie bi tàngoor wi. tàngoor wi bi moom moo tax. ni yaram bi tàngee. noonu lay moom noonu lay dégager cité bi. nekk sa yaram bu ko defee nag daf lay def. da koy ay picc. waaw la muy xasan sa yaram. rawatina boo comme ni ñu naan picc tàngoor dañoo siti. sitil da koy am <laughs> a baax. jigéen ñi dañ naan sama picc tàngoor. dafa am de. waaye siti dañ ko yàgg. bu nag maanaam. <laughs> waaw boo demee sangu nii. sangoo saabu. waaw doo am jàmm. muy fet fet fet yi waaw waaw naan man bu ma laalee saabu yi daf ma dama ko allergie fekk ne. dañoo siti. loolu loolu siti moo koy ah, ah. nekkee nag ñi nga xam ne dañoo nekk ci bitim réew ci ñi nga xamante ne côté yi ñu nekk jamono ji dafa sedd. waaw ñaare seen siti boo xoolee seen baaraam yi. waaw da koy xar. day weex day weex mm-hmm, waaw koy xasan muy neex lool. Mm-hmm, waaw ba mu leen di dagg. Uh-huh. waaye jamono bi ñu koy xasan dafay neex. mais bu ñu bayee day metti mu xar-xar yi baaraam yi tànk yi. waaw daf koy def loolu. loolu siti moo koy def siti koy def. bu nekkee sa karaw dafay xus su rawatina jigéen ñi nii. Ah, seen karaw di dagg lu baree bari bari. Mm-hmm. loolu itam siti moom moo koy def siti koy indi waaw. siti boobu nag. waaw noonu lay demee ba jàpp sa ngóor bu dee yow góor nga. comme ni ko émeri di jàppee. Mm-hmm. boo àndeek sa soxna. Mm-hmm. ci ab lal. Mm-hmm. du mat sax ay quelques minutes. nga daal di jeexal. te góor war naa ànd ak am lu mat ñaari yoon ba ñetti yoon ci jour bi. ah ñaari yoon. bien sûr. ñaari yoon ba ñetti yoon mën nga koo ànd ak soxna bu nekkee wér. Mm. daal na la waaye nag ànd ak sa soxna benn yoon kese ndax jigéen li mu soxla góor da ko war a jox. Ah. mais bu fekkee ne yow boo àndeek sa borom kër. benn yoon balaa mën fukki minute moom mu jeexal. Mm, waaw moom mu soxla la yow mënoot ci moom dara. waaw waaw da ngaa siti wala da ngaa hémorroïde. hémorroïde wala siti. voilà il faut voilà da koy faj. kon war ngaa mën a kii ñaar. ba ñaar ba ñett war ngaa mën a ànd sa soxna ci kattan bu wér a wér a wér a loolu moom dafa dafa dafa jaar. muy kii. bu baax a baax a baax. Ah. waaw loolu loolu loolu dafa mën a dafa war a mën a am bu baax a baax. te loolu loolu na ndaw ñi ñoo ko mën wala mag ñëpp waa xam nga mag. wax naa la sànq moom sa doolee mag day jeex. doolee mag mag nag moom. am na mm. garab bu ñu koy jox goo xam ne même bu dooleem jeexee bu ko day jël. day mën a ànd ak soxna day mën a ma <laughs> ci wax ji waaye la xam nga. <laughs> waaw leeral la non non kii la leeral la. mu nga waaw bàcc loolu dara. voilà loolu moom boo amee 60 ans ba 80 ans ba ans. bu sooba yàlla boo ñëwee dinañ la jox garab goo xamante ni boo ko day jël. da mm. ngay man di liggéey bu baax a baax a baax. Mm, sa soxna dina la sant bu baax a baax bu nekkee ne ndaw nga moom. waaw ni ma la ko waxee xoolal sa yaram. Mhm. boo amul hémorroïde am nga cité. waaw ngaa bañ a am hémorroïde. Mhm. mën a am bañ a am cité ba pare am faiblesse sexuelle. faiblesse sexuelle néew kàttan mën nga koo am. loolu nag mën naa jógee ci jimbo yi lekk yi ñuy lekk nii. Ah, loolu daf koy def ko mooy bouillon yi ñuy jël ah. yëpp daf lay def néew kàttan. da lay wàññi voilà mais yooyu am nañu itam ay traitement ngóoro yoo xamante ni wax dëgg yàlla traitement naturel la. du ah. looy jël. di am kàttan. kon daal ñiy tëdd ba guddi jóg di yéeg ci danga ngaa war sa soxna moom da nga ko war di satisfaire bu baax a baax a baax loolu moom boo ko deful rek yaa ah. yaa ngi koy lor dëgg la waaw te it nag ñaareel léeg-léeg nga gis jigéen ñoo xamante nii maanaam danga leen di gis ci naka sa du noonu fekk na itam boroom kër yi itam dañuy desee man ci ñoom la am mm, solo waxuñu ne nag da koy dëkkoo xam nga mën nga ànd ak tey sa soxna ànd ak moom ñaari yoon ba ñetti yoon waaw bu subaa nga jël la bu subaa nga jël la eh, di tëb waaw waaye nag mm. maanaam toog nekk sa soxna te sa xel nekkul ci jigéen. waaw te yàlla bind la ngay góor bind sa soxna muy jigéen. ngeen ngeen nekk père yàlla dagal dagana leen ci fartas yàlla sunas Muhammad. waaw mënoo ci dara dara dara dara. xel mi nekk xamal ne mm. danga nga amee feebar. waaw waaw nga ñu xool sa yaram leen moo ci nekk léegi nag. su fekkee ne sa biir bii day jekk naan. nga di ko yëg. Mhm. léeg-léeg mu dem ba nit di ko yëg. waaw loolu ballonnement la. ballonnement daf koy def teelu koo faj mu dañ. te boo ko fajee bu soobee sunu borom bu dañee rek. Mhm. da ngay gis ne boo toogee sa soxna sa xel de dem ci moom. <laughs> wallaay noonu it kasaalika noonu lay amee ci bu xel ma sax ñëwut sax leneen jóg. jërëjëf Sër Bàcce macha allah fi nga ñëw noonu am na solo leeral yooyu nga xam ne tey fi nga dugg ci wàll wi nga xamante ne bii mooy wàllu kii xam naa ni gars yi ci seen jëm yi bopp soxna yi danañ leen wokk ne leen jóg leen gaaw wutali yéey mii seet nañ ba seet daal waaye ñett yi daal baax waaw am na am na soxna soo xamante ni dama dañoo woo nañu mm-hmm. lii ñuy wax daf koo sentir ci borom këram waaye mm-hmm. moom saa yu ko waxee faju ji mu ne kara fajam cosaan fajam cosaan mm-hmm. te kooku kat borom nee na borom këram ab docteur la ah. mën na ko moom bu amee kersa bu mënta ñëw yow soxnaam nga ñëw waaye bi mu ñëwee ñu jox ko garab yi nii. Mhm. ba mu cee jëfandikoo ba noppi dañoo woo sant ñu bu baax a baax. Mm, ànd ak borom këram ñu. waaw waaw moo gën moo gën dem di defi leneen. Mhm. ma ne bul tas kër yi benn yoon doy na sëg. affaire duñu ay xar baax na jërëjëf Assane mi duñu ay xar duñu ay nag. waaw jërëjëf sëy moom benn yoon baax na. merci jërëjëf ah waaw daanaka. jërëjëf xabaj xabaj rek. voilà bàcc euh, ba Samba nañ ñëw nag ci rab yi est-ce que tamit rab du causer par yenn saay xam nga am na ñoo xam dañuy wax ne dama am jabaru rab am na ñoo xamante ni euh, bàcc il faut ñu gaaw parce que jabaru rab ak et cetera yooyu am na ñuy wax lool parce que dañu war a ñëw ci kiiwu Cheikh Bara bi rapidement hmm. est ce que parents saa yi doo bëgg a dem ci sa soxna sa jabaru rab téye la ba guddi mu song la yooyu tamit est ce xam nga yàlla li mu sàkk ci ay hmm. mbindeef waaw bari na lool hmm. li ëpp ci mbindeef yuy dund te xamuñu dañ ci biir géej lañ nekk ci biir géej waaye yàlla doomu aadama ak jinne rek moom la ci sant ak ñu jaamu ko ñoo ci toggoo ay bàkkaar nit ku ñuul ni muy demee ci nit ne ko njabaral ma diw mhm. ba yàqu waaw noonu la jinne waaw di demee ci moo maanaam nit ñi waaw sol leen xam-xam bu bon ba ñu mën a def yenn yi mhm. loolu moo tax mhm. jigéen di am rab góor di am rab di am rab waaw euh, euh, faru rab ñaareel da koy gént sax ku lay ñëwal bu dee ah. jigéenam muy sëy ak sa borom maanaam muy nuru la sa borom kër di sëy ah. ak yow di sëy yow bu dee góor dana la nuru sa soxna wala mu nuru la keneen koo xam waaw ngay sëy ak moom saa su nekk mhm. wala ngay kiintu ndox mu bari saa su nekk waaw yooyu yëpp ay mandargay mu ne yow da ngaa amee ay rab da mhm. am na ñoo xame ni maanaam rabu cosaan lay doon sa maam la sa maam a ko doon am nga ñëw nga ñëw am ba bam ak say sët mhm. waaye ala xaal moom rab moom nañu ko daan faje ba ndëgëni sensé wuñu ci dara mm-hmm. te kenn nit mësta toog fenn ba ne ñu dafa ñëw ci ñun faju rab am rabum fajam rabam ñun moom dañ koy faj ci altine lañ koy faj te ci même suur bi lañ koy faj te bu ñu la ko fajalee bu soobee suñu bam sa rab tàqalikoo ak yow walla ak nu mu la mën a dikke nag moo xam mm-hmm. ngay ngay ngay nga boo duggee ci kër gi nga ñàkk jàmm léeg-léeg góor day dem namm soxnaam loolu dugg ci kër gi ñàkk jàmm bu gisee soxna si maam di énervé di def yooyu mm. rab moo koy def mm. jigéen day namm boroom këram lool wala bu nekkee ci sëyam day am mais borom këram maanaam eh, ay chaque xuloo chaque coow ba fay di ci am mais su fayee ba dem kër ci yem rek mm-hmm. commencé na mat borom këram mm-hmm. loolu rab moo koy def bu mu nekk ci yow rek alaakulli mm-hmm. xaal xamal ne rab moo ko def loolu nag lu ñuy dindi ñi ñi ñi dañuy da lay daanu loo da lay dof loo et cetera yu du mel noonu rab moom mandar misaal mu nekk da koy da koy def ci nit soo ci xoolee xam ne yow mi lii waaw histoire bii sa borom kër defu la dara waaye mënoo am ak moom jàmm rab la sa soxna defu la dara mais mënoo am ak moom loolu rab la waaye nag lu ci nekk nekk da ngay seet ndax léeg-léeg nga seet doo gis rab waaye da gis ab liggéey bu ñu def uh-huh. voilà ah. mais bu dee liggéey bu ñu def itam li ñuy dindee rab it ñun noonu la ñuy liggéey d'accord léegi bàcc euh, parce ñu gaaw balaa ñuy ñëw ci kii sax pour ñu nekk bitim réew nga xamante ne bi jafe-jafe yooyu tamit ñu ngi koy am am na ñoo xamante ne bi seen jëkkër ñi seen jabar ñoom ñëpp ñu ngi bitim réew mais par exemple dañuy am jafe-jafe yooyu am na ñoo xam ne tamit seen jëkkër a ngi eh, bitim réew wala seen jabar a ngi fii ñu seego mais léeg-léeg tamit même sax ba ci dañuy xuloo bu ñu nekkee bu ñu nekkul léegi sax ñu xuloo ci téléphone. Mhm. yooyu yëpp rab yooyu mën ngeen ci dara. maanaam rab moo koy def wala liggéey def ko. ah rab wala liggéey même bu dee lu mu ci doon mën ngeen. waaye lu mu ci doon. waaw seet lay doon. seet da ngay woote. ndax bu nekk bitim réew su wootee. waaw ne pour nga xoolal ko. waaw di ngeen ko mën a gis. bu baax a baax a baax tey mën ngeen koo faj. tàggale ko la bu ngeen gisee ne rab la gis nga boo gisee seet gi ñu doon seet di ko wax horoscope ak ilmu nujum waaw man ngaa nekk bitim réew ci nature bi ngay dund foofu tubaab bi ngay dund foofu moo tax ñun seet gi ñuy seet mm-hmm. euh, mu nekk seet bu yéeme ndax mën ngaa nekk bitim réew waaw nga ne fan nga nekk nga ne par exemple nga ne yow yaa ngi France mm-hmm. ñu ne la joxeel sa tur mm-hmm. sa turu yaay waaw sa date de naissance dinañ la seetal ba seetal la environnement bi ngay dund yow bi nga nekk yow. Mhm. maanaam ba xam yow tey jii. Mhm. li nekk ci sa yaram lan la. Mhm. wax la li nga xamante ni maanaam moom moo koy faj. wax la li nga xamante ni moom moo di ay saraxam. waaw boo nekkee bitim réew mën nañ laa defaree lépp ay sangat la rek du am ndox moo xam ne dañ koy envoyé. ay ay maanaam lenn li al alquran la lenn li ay sunguf la yoo xamante ni lu ñu defar la ba noppi def ko ci enveloppe def ci sa def ko sa CP soit ñu jox ko la soo ci jotee am nañ numéro jaar yoo xam ne. boo ci wootee ne jot nga ni nga koy composé si nit topp ci numéro boobu noonu chaque jour ni nga war a def ba keroog ngay jeexal d'accord ala kulli àll daal sëñ saa mhm. foo mën a nekk te bëgg a faju rab mhm. boo ñu wooyee bu soobee suñu borom des na la seetal des na la mu wax ba xam tam lii moom mhm. mooy sa rab jërëjëf jërëjëf sañ Bàcc macha allah waxtaan wi daal dinay am solo lool di waat numéro téléphone bi di 77 610 81 81 ci ngeen di woote bu ngeen wootee ci beneen numéro leen ci dal yéen a ko teg seen bopp numéro boobu ñuy 77 600 610 81 81 mooy numéro bu baax bi nga jox ko cabinet bi loo ca mën a am ñu daal la ko bàcc day ñëw ci mbirum Cheikh Bara Ndiaye boroom def gis hmm. dégg nañ ni mi ngi ci grève de fin te jamono ji ñu toll nii sonn na. lool loolu da nga koy confirmer wala. lu wér la dégg naa ni sonn na trop. lu wér la. Hmm. Euh, ñëpp dégg nañ ko ci avocat bi ñuy wax maître Moussa Sarr. Hmm. Euh, waxoon na ko. ba yaakaar naa ne médias yu bëri sax jotoon nañ ko jàllale. Mm-hmm. grève de la fin bi nag moo ngi ko tàmbali woon euh, bisu samedi. Mm-hmm. la ko tàmbali woon. waaw euh, def na ci moom it wér-dig yaram. Mm-hmm. ndax ñun sax nga xamante ni ñun waa kër gi. am na bis yu ñu ko daan mën a seeti. waaw léegi mënatuñ koo gis. boo bëggee dëgg-dëgg rek. ñun sax mënatuñu koo gis. waaw. ndax kii bi euh, waaw. buñ ko bëggee gis daal maanaam wala ñu bëgg am ci moom information. Mm-hmm. xëy na maître Moussa Sarr wala maître Diallo. Mm-hmm. moo ñu ciy mën a dimbale. waaye amatuñu accès ci Cheikh Bara ah. ndax wér-dig yaram sooxe na gépp ak sooxe. Mm-hmm. ndax grève de la faim bi moom tàmbali woon na ko te yaakaar naa bis bi léegi tey mu dellusi. te bii yoon ndax ah. dakaa tàmbali woon ñu ñaanoon ko. waaw mu bàyyi. mu demaat ba ci biir mu tàmbaliwaat ko ay kilifa ñaanaat ko. mu bàyyi. waaye gisut itam njeexital loola. waaw loolaa waral nag mu sampaat grève de la faim. Mm-hmm. ci biir loolu itam may eh, indi ay kàddu yi seede ak kaddu yoo xamante ni yónnee nañu ko. waaw ngir ñu santal ko eh, sëriñ Abdou Samad Mbacke Sohibu Xaadimu Rasul. Mm-hmm. ndax eh, ku am taxawaay la ci Seex Baara. waaw taxawaayam rafet na lool lépp lu mu man mm-hmm. ci énergie am. def ko ngir Seex Baara génn. def na ko. waaye nag yaakaar dong nag la amoon. Mhm. ndax dafa am rek ñu mu ko séqal ñoo xamante ni. Mhm. ay bokkam lañ. Mhm. bokki kilifa yi diine am na bokki kilifa kaada it am na. ndax kilifa diine gu nekk yaay yilif kilifa kaada. waaw te it def na ci li mën lépp dox na ci. wax na ci. te suñu abdu it nekkul ne ku xamoon Cheikh Baara bu njëkk. waaw jaxasoog moom ba tax lii mu def mu def ko ci. suñu abdu samad son yi bu dafa nekk nitu daara. Mm-hmm. lépp loo xamante ni dafa jëm ci daara. muy jafe-jafe daara da ca am taxawaay boo xam ne sénégalais yi ñëpp ñu ci bari bokk. Mm-hmm. ràññee nañ ko ci lool mm-hmm. mbirum Cheikh Bara mii bi mu agsee ci moom lu mu njëkk a wax. ndax da doon jàngale alquran. ñu yónnee ko ay vidéo yoo xam ne internat Cheikh Bara ñi ciy jàng. waaw ne ci daara ji ak tout tànk ya fay jànge ba ci sax ay ay ay ay euh, gone yoo xamante ni maam dañ leen a jox ñu tari. ci fi nga xam ne ñoom fi lañ toll. waaw ba mu déglu leen xam nu seenum njàng ni mel mm-hmm. ca la ci gën a amati taxawaay waaye dafa fekk it tax Muntaxa yàlla na fi yàgg loolu te wér mm-hmm. santoon ko ne ko mbirum Cheikh Bara mii day mm-hmm. na nga ma ci dimbale féetale naa la ko loo ci mën a def ba ñu bàyyi ko nanga ko ci def loolu nag sax moo ko gën a tax maanaam amutul jàmm waaw dem na ba wan xale yi ni leen lii may def ngir ngeen xam ne dëgg la da ngeen di toog ma woote ci ñi nga xamante ñoom laa ko seqal nga xamante woo na ci ay kilifa yi nga xamante ne jàpp nañ ne mm-hmm. suñ ne woon nañ ko bàyyi ñu bàyyi ko maanaam woo na leen mm-hmm. ba am ci yaakaar ndax it digg nañ ko ne ko danañ ko bàyyi waaye mu amoon ci yaakaar lool waaye loolu nekkul mm-hmm. waaye it faw ñu xam ne it Sénégal yi leeral Sénégal yi yëpp ne waaw baaram moom yoon teewu ko ndax lu tax yoon teewu ko mooy waaw biñ koy door a jàpp yoon a ko jàppaloo waaw yoon moo ko téye ba mu soob ko mu woo ko déglu ko auditionné ko. Mm-hmm. bi mu ko auditionné ba pare itam. waaw yëkkati na téléphone ya nga xamante ni njortoon nañ ne ca lañ euh, jaare woon ca lañ jàppoon ne moom kii euh, liñ ko doon jàppee ci téléphone yi la nekk. waaw ñu ko xoolee ba xool ko yëkkati nañ ay téléphone am delloo ko. waaw ba defoon ko joxoon ko liberté liberté provisoire. waaw. Euh, boo xamante dafa am condition. waaw ndax liberté provisoire moom condition yi mooy fekk cinq jours loolu mooy lu loo xamante ni lu condition tegu la. Hmm. ginnaaw bi nag procureur. Hmm. moom moo defaat ab appel. moo def appel. looloo waral seex Bara ñu teeyaat ko. Hmm. kon nag euh, nañu xam ne kon euh, moom set na. waaw te it naka jekki ñun ba mbir mi amee dañ kaa setaloon. ndax dañoo xamoon moom nit ki mu doon ak li muy posé. waaw jamono jii ñu toll. jamonoy màggal Tuubaa la. waaw. te boo xoolee lu mat ñaari weer. Mhm. Cheikh Bara déjà am na ko ci biir. Euh, prison bi te yàlla seede na ne fii may wax ak yow nii. waaw daanañu soññ ci màggalu Touba taxawaay bu mu jëm ndax li yanu ci moom li nekk ci loosam daa diis du caage ne màggalu Touba ci këram. Mhm. waaye am na nit ñoo xamante ni bu màggal gi masaana jot moo leen di jëndali nag. waaw wallahi azim dëgg la ci ay kilifa yi diine hmm. ak boroom njaboot yoo xamante ni yaakaaru nañ ko ci lool hmm. te looloon nag jamono jii daana ah. fekk ñu lijjanti ci lu bare bare bare man mii première safar bu ma saana jot maay dem Touba hmm. xool la nga xamante ni maanaam yor naa ko ci lu jëm ci loolu ma def ko waaye damay xamal itam euh, moom suñu baara itam ni ma ko ni ma ko leerale woon ñëpp ñoo xamante ni dañu daan am taxawaay bu ñu daan taxaw ci màggal gi di ko ci taxawal moom itam. Mhm. loola Cheikh Bara nekk fi ak mu ñàkk fee nekk loolu mi ngi wéy di continuer. bu soobee suñu borom kon. bu ñu jàpp ne Cheikh ngi ñu téye rek. Mhm. ba ñu léegi dañoo war a téye seen loxo déedéet. Mhm. kenn ku ci nekk la nga daan def téye ko daan def ci sëñ Touba di ko jaaree ci Cheikh Bara tam loolee te ñoom ñëpp dañ ci daan teg seen bët ndax lu ñu masaana def yëpp ñoom dañ ci daan jot. kon loolu itam ñoo ngi leen koy lancé bu baax a baax a baax a baax. d'accord di ñaanit euh, euh, Omar Bamba Diop moom it ñu ngi ñaan ñu bàyyi ko. Mm-hmm. ndax nit la koo xamante nit ku baax la. Mm-hmm. loolu nag daf ñu waxoon rek nañ ko ci waxaale hmm. ñaanaale itam état bi ñu bàyyi ko bu baax baax ndax Omar Bamba Diop kat nitu diine la koo xamante ni hmm. yaakaar naa ne moom daaru musi gépp xam nañ ko jaar ay mbokkam jug def li ñu war a ngir ñu mën ko bàyyi ñaan ñu bàyyi bépp détenu politique boo xamante ni woon nañ la hmm. juróom-ñaar téeméeri nit yi ëpp nañ saa njoogu dañ koy wax rek waaye li ñu téer yi ëpp na juróom-ñaar téeméeri nit kon ñoo ngi ñaan réew mii jàmm am fi amiin amiin tey ñaan suñu kilifa diine yi nga xam ne ah bi mbir mi yëngoo. Mhm. tax defoon nañ ci ay jéego ba mbir mi dal. ñoom it ñu wax ak ñaan ak ki nga xamante ni moom moo yore réew mi. di président Macky Sall. Mhm. ñu ñaan ko ne comme nag comme moom bu fekkoon ne moom tëj Ousmane Sonko rek la bëggoon. Mhm. yàlla dogal na loola def na ko. léegi nañ ko ñaan itam nag léegi ba mu bàyyiwaat ko bàyyiwaat ñëpp Sénégal nekk ci jàmm. juróom benn weer yii dese ci diggante ak élection ñu dund ko ci jàmm ak salaam. Ah, ba mu ci àggee réew mi nekkaat ci jàmm ak salaam ku yàlla tegaat moom la yàlla tegaat ci bopp réew mi loolu da xanaa man sañ naa ko bu fekkee fekkee ne xanaa wax lu baax dong la ak ñaan yaakaar naa loolu yàqu dara dëgg la loolu daal moom maa ngi koy maa ngi koy jërëj jërëjëf bàcc Massamba mu Cheikh Bara Ndiaye def gis di wax ni waxtaan wi am na solo tey rafet na waxtu wi dab nañu papa pëm defe naa ni lekkaale nañ sax ay minutes waaye loolu du dara rek waaye di fàttaliwaat numéro téléphone bi di wax ni numéro yi ngeen di gis hmm. ci bas écran bi mooy numéro raison yi waaye tamit di leen wax ne numéro bi nga xamante bi ci ngeen war a jaar mooy 77 610 81 81 77 610 81 81. waaw asalem 2 la ñuy liggéey rek. samedi dimanche asalem 2 waaw samedi dimanche waaw. école Madiaye Sall. Mhm. Euh, lundi. waaw ci la ñuy faj rab. incha allah kuy faju rab rek da ngay woote. ñu wutal rendez mardi ak vendredi ñu ngi tënge cité enseignant terminé su 48 d'accord ku fa ñëw rek boo laajtee kër sëñ Baara Ndiaye ñu wan la kër gi jërëjëf Bàcc Ma Samba waaw kañ jërëjëf jërëjëf ma jigéen leen nga Bàcc Ma Samba bu Cheikh Baara Ndiaye waxtaan wi am na solo lool ñu ñaanalaat ko rek bu baax a baax moom Cheikh Baara yàlla suñu boobam taxawu ko taxaw bépp détenu politique ba ñu gaaw génn ca kaso yooyu la acca ñu daal di dem euh, suufle tuuti rek ànd ak suñu ay partenaires dellu siwaat